ak ci biir Europe at mu jot baaxoo nunu nun ñëpp di dem Daaru Gay fa xam ne muqaddam bu mag ba ko taxaw woon ak Sidi Aboubacar Si radiallahu taala anhu taxaw ak Alaaji Mansour ak Alaaji Abdou ak Alaaji Habib muqaddam ba xam ni li fi nekkoon leen di wax moral frère ak moral prom ak Nosoko wala Espoir nuy ay tubaab daan ame ca dëgg-dëgg koom-koomu réew mi olof bi jëkk am koom réew mi di ko doxal sur le plan économique sur le plan commercial mu ngi tuddoon Alxaaji Amadou Gaye Tamba. barkeelu ci wàllu Cheikh Seydi Mouhamed bin Moustapha radiyallahu taala anhu mi nga xam ni seen gàmmu gi ren moom ngeen ko dippee. Eh, wax dëgg yàlla muy yéene goo xam ni sunu wajur bu baax ba alaaji Gaye Tamba moom Mouhamadou Gaye Tamba ñu nekkoon wëllëla Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha radiyallahu taala anhuma wax dëgg yàlla àndante moom ànd ak bu rafet eh, macha allah nekkoon nag mu nekkoon nag njaboot Seydi Hadji Malick yëpp nekkoon ci koo xam ni kii nag cofeel gu rëy ak taxawaay bu rëy la am ci biir këram ci biir ci biir kër gi ba tax na at mu jot mu jël kenn ci kilifa yi njaboot Seydi Hadji Malick tudde ko bés gàmmu gi ndax comme ni nga ko waxee léegi nisar bi góor gi amoon ci diggante mu Seydi Hadji Malick radiyallaahu taala anhuma mu ma pour ñu mu defal ko kaamil alxuraan yàlla sosalu ko mu mu faw yéene googu jooyal ko ci njaboot gi ba kenn ku nekk am na jagleel jagleel na benn kaamil ba fa tabaarakallahu bés bu at mu jot nag bu ñu jëlee gàmmu gàmmu gi njabootu kooku ñu jagleel kaamil bi ñëw jël ko macha allah noonu lañ ko def ba ren ji yàlla dogal ñu si Moussa jot cëram ñu am ci kontaante lool am ci mbégte lool. di wax tuuti rek ci li nga xam ni moom la ñu dëgmal muy gàmm gi nga xam ni sunu waajur Alaaji Amadou gay ñëpp xamee ko ci mbaa boog ñu bari xamee ko ci Gaye Tamba moo ko sos. ëpp na ay at yu bëree bari bari bari di ci wone cofeelam ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak delloo njukkal sunu borom ndax moom addinaam yépp ñi ko xam ñépp mën nañ koo séede addinaam yépp ñaar yi nga xam ni moom la yàlla subhanahu wa santaane ci la nekk ba bi mu koy wuy li ci jiitu mooy jaamu yàlla jaamu yàlla te doo ko boo bokkaaleeg dara dara dara dara. mbokk yi ni ñu koy defee at mu jot bu nu tollee ci jëm ci sunu gàmm gu mag gi di xew fii ci Daaru Gay di ci woo Sénégal yëpp àdduna ci yëpp buñ ci masaana toll daal di wax ak yéen ñaari baat ak ñett yu jëm ci daara. wax ñaari baat ak ñett yu jëm ci góor gi nga xam ne moo ko daan woote te ba léegi njaboot gi continuer di ko woote moom nag daa doonoon nitug daara ndax daa xam lan mooy daara daara mooy li nga xam ne ci la doom aadama di amee ñett yoo xam ne ni ko daara amee kenn amewu ko noonu mooy def ci nit jom def ci nit ngor def ci nit doylu def ci nitu njàmbaar ñeent yi ni ko daaray defe daanaka kenn mënu ko cee wut. ndax euh, euh, nit soo ko bëggee na nga koy yar te olof dafa jël yar tudde ko ak yar mooy il faut mu am tuuti coono ndax tubaab yi nga xam ne sax at mi rek lañ jëm suñu bëggee seen doom ci réew yu mag yi dañ koy yóbbu mu def armée ñëpp xam ne armée tàggat na yàlla may ñun. ñu am daara nga xam ne dañ koy bokk jàng ak tàggat suñu waajur yi nag dafa mel ni ñu bëggee woon ñun bëggee woon ko suñu doom nit ñu bëggee woon mooy dañu bëggoon ëllëg ñu tekki tekki googu ñu bëggoon mooy daawuñ seet lu ñu naqari ak lu ñu neex ndax dañu xam ne ah ëllëg suñu jaaree fi ñu jaaralee ëllëg danañ am lu ñu neex ndax ñun tey ñii bokkoon na ñu ma bokkaloon yaroo ñu am liberté jànge wuñ defuñ lépp waaye tey jii wax dëgg yàlla waxuma ne eh, ñee nañu waaye man ñëwuma ne te loolu tamit taxawaay bi daf ci am solo. alxaaji Amadou Gueye nag moom moom eh, nit mënu ci wax lu bees ndax yàlla dogal nañu ñëpp ko xamoon wala boog ñu baax ñëpp xamoon nañ ko eh, kenn ku ne xam nga ci moom loo xam ne xëy na keneen ki xamu ko waaye am na ci moom loo xam ne ko bokkoon xam mooy. ku yàlla barkeeloon dundam la waaw yàlla moo ko moo barkeeloon dundam macha allah wax dëgg yàlla ku teel a man alquran la waaye ku teel a bëgg a dunde aw ñaqam la te yàlla barkeel ñaqam jamono yee rek ñu ngi ci waxtaan maa ngi ci wax benn goroom di doomam ñu tudde ko ko mu ne bi mu njëkkee dem Chine populaire 1940 la woon quarante nga léegi nag léegi mel ni Chine Chine a ngi door a xew moom 1940 la la jëkk a dem Chine te boobu du lakk la angale du lakk tubaab nga xam ne ku teel a wóolu boppam la wóolu boppam mooy wóolu daara ji lu mu am yàlla ak gëm boppam ak gëm daara moo ko ko may euh, yàlla yee koy itam mu xam ku mel nan la Sénégal soxla loolu yëpp teewul woon mu nekkoon mu xaddam bu mag ci kër Cheikh Seydi Hadji Malick fab alalam li Ibou Sakho daan wax ni nan def fret alalam moom defoon na ci fret jël ay doomu soxna jox leen ay xaleel yu ndaw mu leen di jàngal alxuraan ak di leen di jàngal xam-xam ñooñu ñëpp mu leen di dundal di leen solol dafa baaxoo woon nag at bu jot mu woote ca daaru gay ci ndigalu sunu baay alxaaji abdul aziz ak ay doomam yépp di seydi mouhamadou mansour borom daara ja di seydi abdul aziz al amin di seydi aboubacar ak maodo si mi xam ne moo koy présider at bu jot dafa daan woote ca daaru gay di màggal sang bu tedd ba rasulullah sallallahu alayhi bàyyi fii njabootam gi ñun ñëpp nu fab seen porte parole jox ko doomam Cheikh Ahmed Tidiane muy doxal di leen rendre compte. sëriñ bi li ma laaj ci El Hadj Amadou Gaye du yomb ndax nit wax ci boppam yombul waaye la nit la woon koo xam ni ab taalibe la woon te ku ku yàlla mayoon la yàlla may gi du may gu làqu ndax ci doxalinam ndax moom bi mu gëj gis waajuram bu góor. bi am juróom-ñeenti at la ba tey gisu waaye lu ma ko mosoon wax mooy dénk naa la alxuraan lépp loo def lu lu jàngale alxuraan ak jàng ko doo ci am ndam moo tax daara la yoroon di jàngale mu ngi nettali am na at moo xam ne bi maral amee dëgg dëgg dëgg nga xam ne dana ànd ak noor bi day ànd ak dong yi dem di nooraale dem na fekk sëñ sëñ si Cheikh Anta Mbacke ci dëkkam xaw ma Daaru Salaam la xaw ma ban dëkk ko fekk nee na ñoom bu ñu masaan a ñëw ci penc mi rek la ñuy njëkk a def mooy day jàng alxuraan ca kaw daanaka ba ba set nee na keroog bi mu jàngee bu noppi sëñ euh, sëñ Cheikh Anta Mbacke dafa ne nañ ko wol ndongo boobu doon jàng alxuraan ba mu ñëwee ba muy ñëw boobu ñoom ñëpp xiif nañu lool ak dongo yi ndax xiif moo taxoon ñuy wër di nooraani nee na cere barayaale ko mu jël génneel ci rondal gi ne ko lii dem yaa ko moom te waxtu wi fii nekk lépp maa la maa la maa la yoral yàgg dong yi seen seen dund nga xam ni yàgg na ak alxuraan bi mu ci tollee it yàlla dimbali ko mu dem euh, jubli àdduna wuti àdduna waaye nee na ma euh, sëriñam daf ko doon wax ni ko lenn laa lay xamal lépp loo xam ni euh, nit daf la ko dénk wala àdduna dénk la ko bisa ngi ñëw mu nangu ko waaye lii nga xam ne yaa ko moom te yàlla suñu borom dénk ko muy alxuraan say moo nga téye moo tax bi mu ba ci kanam dafa mujj bàyyi wàññi activités yi bàyyi bi doom delluwaat ci daara te xam nga euh, ba ci ñun nga xam ni daf ñu yóbbu woon ñu laxas si dem jàng ji alxuraan nga xam ne bëggoon ñu rek la ci jublu ndax fii fii ñu dëkk ci Dakar nga jël say doom yóbbu leen. boo boo amul xalaat da ngay jàpp ni da bëggu la sopp la dafa la bañ. njoboot gi kenn koo ci gis rek bokk na ci li nga koy nawee ni muy jaamoo yàlla jaamu bu rafet bu ñu boolewul ak dara ñaareel bi nag jàpp naa ni sax xëy na bu ñu war di gën a fàttali la ñaareel bi moo di defar nit. ndax yàlla bokk na ci ni koy jaamoo nga defar nit ba mu mën a doon ku ñu naw ngir yàlla te góor gi ku nekk xam na ni daara ji mu sos ci daaru salaam gay ay téeméeri téeméeri téeméeri xale nekk ci daara ji ñu def leen internat maanaam boo fa xasee dugg mën nañu jàpp ni say waajur wàccoon nañu yow ndax teg nañ la ci yoonu siraatal mustaqim ah, yoon salaasa bu daan wax xar xayrukum man taallama alquran wa allamahu gën ci yéen mooy ki jàng alquran di ko jàngale yamul di ko jàngale mooy xale yi di fa daje fayeeku wu leen di leen dundal di leen di leen sàng di leen faj ñu nekk fa internat ba mu mokkal alquran ba koy bind yaakaar naa ne loolu ngëneel la goo xam ne gii ah xayul sax ci benn jëm ëpp la sax réew macha allah kon nag yàlla nañ ko yàlla fayal ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi dégg góor ku ñuy wax El Hadj Amadou Gaye nekkoon président chambre de commerce bu euh, bu Tamba te nekkoon kilifa sax ci dëkk bi ndax ñëpp xam nañ ne ci ñi nga xam ne nii bu dëkk bi masaan jax euh, Senghor daana ko woo mu am ak te kilifa diine yëpp euh, ba tey ak njabootam yor daara ju rëy ju am solo yoo xam ne nii. Euh, comme ni daara yi kokk yi mel ak daara yi nga xam ne ñoo nekk kër sëñ son yi bëgg yëpp doomam yi nga xam ne nii ñoom la jàngaloon yar leen ci daara tey ñoo téyewaat daara ja ndax su fekkoon euh, nam leen doon yare daara c'est sûr que moom ci doon yar ci daara ji neexu leen am na du ñàkk ñoo xam ne boo xam ne nii sax daanuñ ko móolu naa daan ko kii daan ko naan ko daf ñoo bañ waaye tey jii gis nañ njariñ ñi mu doon wax kon nag ñun ñoo war a delloo siwaat suñ xel xool ne suñ bëggee suñ doom li leen yóbbu ci njàng mu ñu yaru te tey yàlla def na daara wone na euh, wone na résultat wane na bu njëkk dañ naan wax dongal daara bu tekki waaye tey daara wane na résultat wane na résultat am ci côté kilifa diine yi nga xam ne nii ñoo fi gën a mag ci daara lañ yaroo opérateur économique yi fi gën a mag ki daara lañ yaroo yaakaar naa ci administration bi sax soo tegee ku jànge daara ak ku jaar daara ku jaar daara ak koo xam ne tubaab bi rek la xam da nga gis différence bi bu mag a mag a mag. loolu El Hadj Amadou Gaye moom la réussir wax dëgg yàlla man maa ngi ko xam 1966 eh, ndax man 66 laa ñëw Dakar fekk si sama mag sama xarit sama doom oustaz Aliou Sy eh, nga xam ne sama papa ko jàngal ma ñëw fi pour yokk sama alluwa fekk boobu ma jàng Kaolack teel a bi ma ñëwee. damaa àgg këram rek mu dal di ne ma acca jógal ñu def ñu jóg ñu ànd keroog kër alaaji Amadou Gaye fii ci Liberté 3 la ñu añi ndax alaaji Amadou Gaye moo ko jëloon di ko fay salaire jox ko kër ñun ñëpp ci kër googu lañ nekkoon jox ko kër ngir mu jàngal doomam yi alquran ak arab moo tax doomu alaaji Amadou Gaye yëpp a jàng alquran yëpp a jàng arab ba pare nag ku ci mat a dugg école ñu dugal la école nga jàng nekk kat ñooñu la Sénégal soxla donc type boobu la Sénégal léegi ñu ngi continuer daf créer ñaari sénégalais yu bokkul sénégalais boo xam ne arab rek lay jàng alxuraan du xam ci àdduna tus ak sénégalais boo xam ne àdduna dong lay jàng du xam ci diine tus loolu féeg mi nga am Sénégal problème du fi jóge waaye tey rëccuwuñu ko ndax bi ñu nekkee ci daara ji ba dem ji noppi si ñun ñeemuñu woon ñi nga xam ni mooy suñu dëkkandoo wala suñu wëllër yi nekkoon nga xam ni seen bàyyi daneen daneen bàyyi daneen bàyyi woon fii moo tax euh, ñuy ñaan rek nit ñi ñu dellusiwaat ci ñàngale mag ñi mooy boo amee sa doom danga koy yar jàngal ko la war a jiitu ci moom ci dëndam mooy alxuraan weneen njàng it baax na waaye da ngay fexe ba loolu jiitu jiitu ci moom moom nag loolu la teel a xam bi bi loolu amee it mu tollu jamono mu bëgg ubbi daara comme daaray cosaan comme ni mu ko defee woon ci da ba mu koy njëkk yor ci ba muy gën a doon gone wër na daara ji ba sonn saa su demee si sëñ Abdou Aziz baax wax ko ne ko sàngam gis naa ko bëgg naa fa wut bëgg naa fa ubbi mun ko cibbal si suuf sa indil ma saa su si cibbee suuf sa indi ko mun ko fii de ak leer gisuma ko fi ba fii ci Daaru Salaam ngay mun ko am naa fii mun ko cibbal si suuf sa indil ma boo ko indilee mun ko fii kat baax na ak leera a nga fa mun ne ko balaa nga faa tàmbali dara nag da ngay bàyyi ba ma ñëw su ma ñëwee moo xam ne ñu nooy tàmbalee loolu it mi ngi ci jàngal mi ngi ci jàngal nit ku nekk da nga war a am kilifa am koo yaakaar ndax dem ak sa bopp rek wóorul ndax yooyu loolu yëpp tarbiya boobu la lañ jàngal moo tax bi mu demee ci si Alaaji Abdu wax ko Alaaji Abdu ñëw fa def fa une semaine ànd ak ñëpp ñu waroon àndal ba mu xëyee suba ne ko def fii na góor góorgóorlu bu baax a baax a baax yàlla dinañ defal ndam te ku fi jàngale yàlla na ko barkeel dina mokkal alxuraan munu ko nag waaye ña mbirum jàngale bi dama cee bëgg digal mooy na dem kër sëriñ Mor Mbaye si sa wax mu dal la kuy jàngale alxuraan ak kuy mooy sëriñ Youssou ak Ablaye Sow ñoom ñoo fa nekk dañuy jàngal alxuraan. ñeent yi ni ko daaray defee daanaka kenn mënu ko cee wut bi daara daan daara yooyu la daan génnee léegi nag xëy na barke bi ci daara melut na meloon waaye teewul daal ñeenti moom daara nga ko yor ba léegi moom la góor gi xamoon samp daaraam di ci génne ñu mel noonu te itam def ko jaam yàlla goo xam ne du ci laaj kenn dara rahmatullahi alayhi wa di anhu doon na koo xam ne kii ni ma koy waxee ci sunu émission yi saa su ne ngeen koy dégg góor la goo xam ne kuñ ko mas ne kii borom xam-xam la yaag moom bokk li ngeen li muy am dana fexe ba xam looy dépense xam looy fay ci courant xam looy fay ci ndox ak looy soxla ci ceeb bu ci weer bi su xamee loolu dana ko fexe ba mu nekk lu muy takk jox ko ci njaboot gi kenn mu yët la wala moom mu yët la ko léegi nag yomul foofu mu boole kook euh, jël alalam dem fële ca daaru gay dafa daara ju rëy a rëy joo xam ne teewlu ma nombre taalibe yi xam naa da ngeen ko dégg ci yeneen mbokk yi waaye ay taalibi yu bëree bëri te amul yalwaan amul fay lépp lu fay frais moo koy def mooy jël en charge totalement équipe bi jàngale fa dëkkal élèves yi di leen jox ñu lekk naan defe naa yëre sax dina leen ko jënd daana leen ko jënd daara jooju nag nga xam ne waqfu la loolu mooy waqfu nga xam ni mooy sadaqa jaariya nga xam ne su fekkoon ne loolu dong la def ci lu baax loolu nag doy na ko sëkk tiyaabu yowmal xiyaam mooy daara jooju góor gi nag li mu ci jublu mooy xam ni ku bëgg a defar àllaaxira dangay mel ni war a mel ci àddina pour sa àllaaxira defar maanaam sa jikko ngay jëkk a defar daara jooju royukaay bari na nit ñu ñuy naw ndax nañuy waxe nañuy jëfe nañuy taxawe boo ko seetee ba ci biir dañ ci yokk ni ah bettuñu ndax ndongo daara nañu delluwaat ci daara yi ndax secret si jox secret mi ngi ci boo xam ni ku ko def ci ku yóbbu say doom daara ñu jàngal leen waxuma la nag daara maanaam euh, njàng moo xam ni da dem bàyyi fa daara ja ñëw waaye ka nga xam ne daara ja daal nopp ci moom bu ñëwee patrimoine lay doon ndax xoolal rek moom ci mbirum àdduna mbirum àdduna demoon na Senghor lu muy def mu def ko daf koy laaj waaye dëgg gi la koy wax waaw lu muy def rek daf koy laaj te soxlaalu ko dara ndax xam nga dara li muy dimbalee nit mooy da am jom da ngay am fulla da ngay am fit doo ragal ñàkk doo ragal wéet. Euh, yaakaar naa nga dem 100 mètres soo fa doon xool ni nga xam ne ci alxuraan nañ yaroo ci daara nañ yaroo nekk fa ñu ne la ñoo def ay tuuxi doon yu mag bariwul. waaw waaye euh, bu njëkk mag ñi soo gisee ñu naan danaan damay tarbiyewu la ñuy wax damay dem tarbiyewu tarbiye mooy yaru jàng xam-xam ak yar léegi nag dafa mel ne dañuy jàng xam-xam xale bi day ñëw rek ñu sol ko mu tari alquran day mujj li al li ñuy wax naan yi euh, kamasalal xameeri yaxmilu asfaram ndax euh, mu ngi mel ne mbaam mu yoru ay téere da nga gis koo xam ne day jàng ba ne ar waaye du xam nu mu ko jëfandikoo waaye mag ñi dañ daan daan jàngal tarbiya ak loolu waaye nag ba léegi am na daara yu ko def li am solo mooy fexe eh, jàppale leen ci loolu ma nga xam ne nii ñooñu danañ mën a continuer ci loolu ndax nit ñi bëgg nañ yar seeni doom wala que yërmande gi ak moderne bi rek nekk waaye yaakaar naa li ëpp ci ci àdduna ci sénégalais yi suñu sañoon fi ne nii seeni doom jàng daara. at yi ñu weesu yëpp am na ñaar yoo xam ni doonoon na lool suñu yéene muy daara ji mën a am courant. daara ji mën a am ndox yàlla dimbali nañu ba da ba gouvernement bi indil nañu courant gouvernement bi indil nañu ndox loolu fokk ñu sant di ñaan yàlla it ñu dolli ndax yoon wi dina xaw a jafe léeg ñu ñaan gouvernement bi ñu fexe ba yoon wi ñu gën ñu koo jekkal daal ba ñëw ba mën na gën a yomb ci oto yi nga xam ne dañuy ñëw ndax ni ma ko waxee léegi rek góor gi pour xale yi bañ a dem fenn bañ a yelwaan bañ a def dara dafa génn ci lu weesu juróomi kilomètre dëkk bi gën a jege juróomi kilomètre def fa daara ji loolu lañ xam ci moom mu doon góor goo xam ne gi rahmatullahi alayhi wa radi anhu ku di ñëw ca mag gàmm ga da ñëw rek teg jàkkaarloog moom euh, mu wax la lam lay wax ñaari baat ak ñett ku ñëw ak baat yam lay wax waaye yëpp di dellu ci alxuraan dellu ci waa daara dellu ci ñooñ daara yàlla na yàlla def lépp ci téere jëfam njaboot gi nga xam nag ñooy woote bés bi at mu jot ñi di ko woote yàlla nañ ko yàgg woote ñoom tam di ko woote rek ba sët ya jël ko sët sa jël ko ñu di ko joxlante rek alxaq naa bi duriyatahum bi imaan rek di continuer moom relation relation ak diine yi mën naa wax ne njabootu moom mi ngi tudd mi ngi tudd Amadou Gaye na ko bàyyam tudde yàlla dimbali ko muy dem Tamba di liggéey ndax dafa nekk Pire di liggéey ba mu yàgg liggéey bu doxul mu dem Tamba di liggéey nekk fa yàlla mën ne ko fa gan mu am wërsëg lool murit yi fa nekkoon dem ci sëñ Fallou ne ko am na ko tudd amul sant Gaye bëggul Sëriñ Tuubaa sopp la yow sëriñ Fall sëriñ bi fas denc moom bi mu ko yëgee mu ànd ak ku ñu wax sëriñ Touba dem ci jamono yooyu ndax booba nee na maa ngi dégg mu ni am na loo xam ne leera ko sa kilifa du wedditu ma du ragal waaye da ci am doomi sëriñ Touba ci boppam buy dund ci kaw suuf ñu wax ko dara safaan ci yow lay gën mooy nga leer ko ndax loolu wóorul. nee na keroog bi ma de bi ma ñëwee jóge Tamba ñëw maa ngi añee ci kër Serigne Bassirou ànd ak Serigne Touba dem dem ci Serigne Fall bi ma demee ci Serigne Fall maa ngi ko fekk ndindi mu toog ci romb jaan gi damaa damaa damaa raam nuyu ko ba egsi ci loxoom mu ne ma kooku mën na ko mën la amul mu ne foo jógee mën ko Tamba mu ne ko yow dégg dégg bi neexul leen sëriñ bi nettali ko ko Serigne Fall mu ne ko sëriñ bi da xam nga ni nit ki mënut a mokkal alxuraan ba alxuraan nekk ci dënnam te soppul Serigne Touba sopp nit ki mun munoo wax ni bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi te bëggoo Sëriñ Tuubaa bëggu la yow mi loolu amul. ba mu mën ko kaay bis ni tey may naa Tamba te loolu moo waral turu gay Tamba gi waaw moom mënoon toog Tamba rek ne man kat Seydi Maalik laa yaakaar waa këram déedéet waaye xam yàlla rek xam mbayu yàlla yi xam yaatu yàlla yi mu ne déedéet naa dem rek gindi gindilu ko ci sama kilifa wàññiwul dara. mu ko loo gën a bëgg mu ko dama bëgg ah, ah wërsëg woo xam ne dinaa ci mën a liggéeyal yàlla liggéeyal ci yonent bi ak gor soo xam ne sonn na ma jàppale ko ci mu ne ko bis ni ki tey yàlla defal na la ko tàll sa làmmañ mu tàll ma am lu mu ci def kooku boo ko weddee laaj ko bàyyi sulay gay bi nekk njaareem moom mën na la cee seer seeral soo xam ni ëpp na ndax nit moom mënta wax ci ci ci boppam da ngay xool ni mu jaxasoo nag euh, sëriñ Abdou Lahad nee na boobu moom mi ngi jóge ni di indi euh, di ñëw di jaay guro Tamba mu ngi dajeeg sëñ Blaat ci train bi sëñ Blaat mi ngi taxaw xamu ko sëñ Blaat xamu ko waaye bi gis na ko mu taxaw mu ak leer ne ci kanam mu ne ko sëriñ bi kaay nga toog fii sëñ Blaat toog ak ki mu àndal moom mu taxaw bañ egg si Tamba bi ñu wàccee Tamba moom mu dem këram. ma nga fa fekk euh, jëwriñu sëñ Abdoulaye Mbacke mooy sëñ Abdou Baaxe Jaxate sëñ Abdoulaye nekko ko daal am na ku xees ku ma defal teraanga nii la mel nii la mel sëñ Baaxe Jaxate ne ko kooku euh, gay alxuraan la kooku rek la may nuru nee na ci guddi gi sëñ Abdoulaye ak sëñ Baaxe bi di doxantu ci Tamba mu ne ko kooku kat nga doon wax këram a ngi nii nañ dem yëg ca kaw bañ demee ca kaw fekk nañ ko muy jàng alxuraan foofu la fasanteeg wala rek ak si im jàppante dem na ba si im laal ko daal loo bëgg ci man rek ma def ko incha allah si im laal kër Tamba ah, Touba nga ñëwee di nekk mun ko déedéet sëriñ bi ñaar mën koo tabax ndax de taalibe yi ñoo ko fi indi man damaa bëgg di indi bëgguma fiy jëlee. kon kooku mooy Alaaji Ahmadou Gaye Aliou Sy moo tax ma xam ko te Aliou Sy ko doon doyee mooy jàngal njabootam njabootam ji bëri moo leen jàngal euh, macha allah kon doomam yi def na ci li ko waroon jàngal na leen diine jàngal leen àdduna waaye yem ca dafa tabax daara fee ci daaru gay ah jël am sax ñu jàngale ñëpp. at bu jot nag dafa am ku ko daan baaxale tuddee ko ren ku ko tuddee Seydi mooy kan. mooy doom taawu Sidi Aboubacar si xalifa bu tedd ba toog xilaafa gi vingt-deux ba cinquante sept mooy kan mooy ki xam ni baayam alaaji Mansour mu Cheikh Seydi Alhaaji Malick moo ko yar mu dëkk moom ca Tiwaawan mooy kan mooy sutu Cheikh Seydi Alhaaji Malick radiallahu taala anhu mooy kan mooy sutu it alaaji Malick sal bi xam ne moo jur um xayri Sall bi xam ne moo ko jur mooy kan mooy ki xam ni su baayam daan dem ca jumaa ja di màggal guddi nga xam ni Cheikh Seydi El Hadji Malick moo ko sakkal rasulullahi moo baayam bu xaritam ba soppeem ba ki ko tudde woon jëmin moom moom nooy ànd di wéy nii waaye mission bi nga xam ne moom la ko yàlla jagleel mënu ko fii ci réew mi di Sénégal yàlla dagg mu ñëw fi ah def fi la mu fi def liggéey fi la mu fi liggéey bàyyi ko fi mu waxoon ni nag macha allah nañ jur bàyyi fi jàngale bàyyi fi yar bàyyi fi ba tax na koon jeexital yooyu mu fi bàyyi mooy rogalaat ba ci njaboot Seydi Hadji Malick yëpp ba te ji yàlla dogal Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha di doomu sëñ kër si di taawam Seydi Aboubacar Sy nekk premier xalifa Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhuma fa tabarakallahu mu ñëwoon nag nekk féete ndakaaru fii ba tax na kon euh, moom Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha radiyallahu taala anhu daan na wax ni ñeenti yi ci ñu sant si man rek ma man rek la ko fi yàlla defal man rek maa am sansu Seydou Hadj Mal tudduma dañ ngi des ñëpp moo leen féete mag bañ fi bi ñu gën a àdduna fekk na Seydou Hadj Malick génn àdduna kon moom moo fekk jamono Seydou Hadj Malick moom la Seydi Hadji Malick tuddal ci jëmi boppam mu ni man rek ma ko am itam gane Seydi Hadji Malick nekk nekk ak moom mu ñetti fan xaw ma ñeenti fan tàggoowuñu benn yoon su xëyee di jàngale ji da koy da koy day ci néegam la ko loolu lay lay fanaan mook Seydi Hadji Malick mu xëyee génn ko ànd ak moom yo mu mu mu mu téye ci bopp bi jiitu dem jàkk ji fa lay yendu mook moom ba ngoon jot buy ñibbi bi bi dellu ci kër gi ànd ak moom ñibbi si ci kër gi bu xayaatee dafa moom la bu mag ñetti fan mu takkal ko ay bagaasam delloo ko Louga kër yaayam mu ni man rek la ma yàlla defal ma ànd ak Seydi Hadj Malick fanaan ak moom ci benn néeg di su ma xëyee ak moom ci mu téye sama bopp may tare man la ma yàlla baaxee itam baytul xalwal Seydi Hadj Malick kenn mu sëy fa ñemee fanaan ñetti fan dëkk ndax juróom-ñaari at ndax Alaaji Mansour Si moo ko moo ko yar te boobu it allah maam Mansour moo ko joxoon ne bëcc si xalu si yaayam foofu moo nekkoon néegam daan fa fanaan mu ne man maa am itam yàlla baaxee ma may ànd sëñ Babacar ci tool may topp bi sëñ Babacar di ji daal macha allah yàlla baaxee na ma ko ci barke góor gi. mooy kan mooy ki xam ne su ma sant jàng alxuraan soo ko déggee da wax ni kii ndax Madinatul Munawwara la jóge wala boog Màkka la jóge wala Égypte. loolu it yàlla mayoon na ko mooy kan mooy ki xam ni léppam gannaaw yàlla ak yonant ba jiitu lu ci kenn sunu maam Cheikh Seydi Hadji Malick ak njabootam ak bàyyam si lu mu ko mooy kan mooy ki xam ni fii la toog dëkkoon Médine yuy 14 angle 16 ba yàgg mu ñëw fii ci Fass dép du déplacé waaye àddina yëpp di ko fa fekk lu waral loolu mooy ragal yàlla lu waral loolu mooy bëgg maamam Cheikh Oumar Al lu war a mooy fokk bàyyam loolu mooy ut njaboot yëpp kooku gi gàmmu gi gàmmu gi dañ koy def chaque année ci ndigalu Serigne Abdou baax ñu ñu ko joxee it boole ñoo ak Serigne Maodo si bu El Hadj mooy suñu Serigne ñun ñëpp ci moom lañ jokk nga xam ne léegi bu loolu amee dañuy seet kenn ci euh, nit yàlla yi. tudde ko bis bi ndax sàkku sàkku barke seen barke yu yaatu yooyu xam ni ñëpp xaj nañ ci ñoo ngi tàmbali ci njabootu kër Seydi Hadji Malick li tàmbali sëñ Babacar jëm suuf tàmbali ko njaboot sëñ Tuubaa gi jëm suuf ñëpp tudd nañ leen ko ndax noonu lañu góor gi yore woon bañ dama tàmbaliwaat ci sëtu si sëtu Seydi Hadji Malick ren sax ñoo ko tuddee sëñ Moustapha Sy Jamil doon wëllëre góor di sëriñu góor gi di wëllëreem doomam ju baax ji nag di xalifaam di Seydi Mouhamadou Mansour Jamil moom ci boppam mooy ànd ak rakkam ju baax ji Ahmada ak képp ku yaakaar Seydi Mouhamadou Moustapha Jamil wuti Daaru Gay le 12 kon nuy jox ñëpp rendez-vous le am na cérémonie officielle mooy à partir de 21 yéen ñëpp daa ngeen fekk Maodo si Ibra Ibnu El Hadj Abdoul Aziz ca yar ya ca teggin ya ca xam-xam ba mu dend ak kan ah doomam Seydi Mouhamadou Moustapha Jamil mi xam ni <laughs> su waxee arab nga ni ndax kii <laughs> fu mu jànge su waxee français nga ni waaw kii ban école la génne soo su waxee su waxee anglais nga ni waaw kii ban école la génne ci Angleterre su waxee almaañ nga kii waayu kii mooy su waxee chinois kii mooy kan waaye mooy rek taaw Seydou Mouhamadou Moustapha Jamil bi xam mooy sunu parrain ren ji ca Daaru Gay rendez-vous baa ngoog waaye jullit ji xarit yi soppe yi ñëpp ñoo ngi leen di woo Daaru Gay le douze à partir de